waa jëmi xulafaa'i radiyallaahu alayhim ajma'iin wa nafaana Allaahu bi barakaatihim amiin ok asalaamaaleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatuh eh, ñu ngi nuyu mbokki Sénégal yëpp nuyu mbokki euh, site bi nga xam ni moom lañuy ñuy représenté di asfiyahi point org di nuyu sunu goro di sunu sëriñ maam Omar Ndiaye ak mboolem ñu bokk liggéey bi dinañ ci masawu leen ndokkeel ci weer bi leen ndokkeel ci gàmm gi. fa tabaarakallaahu eh, ñu am occasion bu mel nii nag di war a waxtaanee ci mbirum gàmmu Tiwaawan ak préparatifs yi nga xam ni moom moo aju ci gàmmu gi fa tabaarakallaahu bu weer bi teroo eh, daanaka rek ki la burdu bi tàmbali mais lu jiitu loolu itam eh, nekk na weer boo xam ne bi bés boo xam ne li ci nekk bari na lool te suñu jur yi yàlla dogal na ku mel ni Seydi Hadji Malick bi ñu taxawalee gàmmu ba léegi e, dafa mel ni Sénégal ñépp daal kenn ku ne am na loo xam ni mooy sa euh, part de responsabilité ci biir gàmmu gi ma tax na soo gisee jigéen ñi li ci ëpp ñaareel yu bari ñu ngi koy defar ci gàmmu gi di toppatoo ti benn nganu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam yi euh, suñu waajur di defar ay ay bonbon di defar ay façon ñam bu nekk daal pour di ko yóbbu ci gàmm gi pour mm, ndeysaan gan yi nga xam ni ñoo ñoo jural si ci gàmm gi eh, fii nag sëñ Moustapha radiyallahu taala anhu dafa am lu mu woon këram ba tax na am na ay daayira dawaayir yi nga xam ni ñu aju si kër gi nekk ci àll bi lu mel ni ay Nande Jaxeer ñu mel ni ay daal waa union Louga ñu mel ni union Kaolack Sine Saalum ak yëpp dañuy daan lañ ñëw ci gàmm gi Eh, moom moo leen daan wutal dal ci Tiwaawan seeni eh, toppatoo ak seen berne yëpp nag fa tabarakallah ci moom daan jóge bureau bi nga xam ne mooy bureau fédéral bi nga xam ni des unions de daayira tidiane du Sénégal bureau bu nga xam ne moo coiffé mbooleem dawaayir yi nga xam ne ñoo aju ci kër Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha bu ngi dajee Tiwaawan am na ravitaillement bu leen góor gi daan jox moom la ñuy toppatoo dal yi benn dal bu nekk yóbbu foo njaboot yi nga xam ne njabootam ñoo fa ñoo ñoo fa dal Serigne Moussa bi mu fi jógee ak léegi sëñ Mansour moo jël relève boobu boo su ko defee fa tabaarakallaahu bu gàmm gu jotee dana am lu muy joxe lu takku ci xaalis loo xam ni fa tabaarakallaahu ci dañ jël ay ravitaillement jënd ci daal loo xam ne lii mooy jëm ci dal yooyu nga xam ni ay ay njaboot yu jóge ci àll bi xam ni ci dëkk yoo xam ni miinuñu tuyaawoon te xëy na seen i moyens demul noonu mu fexe ba indi ravitaillement fekk leen fa ñu dal ñu wut yoon ay jigéen ñu leen toggal toppatoo leen ba fa tabaaraka lu ñu am benn toj ak benn tumuranke ci jamonoy gàmm gi donc waxtu la boo xam ne bii préparatif rek dafa doy gàmm ndax fa tabaarakallaahu activité bu ñu ëmb kenn ku nekk yaa ngi ci la nga nekk bon li si ngi si Moustapha radiyallaahu taala anhu daana def bu gàmm gi desee un mois dañuy dajale fii dawaa président daayira yëpp ñu nekk san ci ñu nekk Dakar ñu ñëw ak seen vice président ak seen bureau ñu nga dajaloo fi def benn genre assemblée générale lay doon boo xam ne bii ci la ñu préparé état d'esprit gàmmu Tiwaawan bi ndax jour boobu moom la ñuy wax moom la rencontre la boo xam ne bi genre réunion la boo xam ne bi ñu ngi koy tuddee Dakaroise ça se passe avant ñu ngi ñu ngi koy def avant un mois avant gàmmu gi donc su ko defee suñ dañu laa convoqué fii ci kër gi bu njëkk ba li tax mu tudd Dakaroise dañu ko daan defee fii ci euh, Dakaroise bi nekk ci avenue Faidherbe angle Lamine Gueye am na benn magasin bu nekk fu ñuy wax Dakaroise fa la fonctionnaire daan jëlee seen seen crédit yi di leb ay congélateur di leb ay ay ay frigidaire ak yooyu foofu ba magasin la boo xam ne ñu yàgg Ndakaaru xam nañu ba magasin boobu mooy fii SGBS bi nekk defe naa léegi waaw donc fa lañu daan daje réunion foofu lañ ko daan defee ci Dakaroise foofu lañ ko moo moo tax ñu tuddee ko réunion Dakaroise su ko defee nag bi ñu demee ba nga xam ne léegi kër googu jën ñeneen jënd nañ ko ba tabaarkalla mu changé statut donc ñu sëñ Moussa joxe ndigal pour ñuy def daje fii ci kër gi ci Fass donc su ko defee boobu ba léegi nag eh, fii la ñuy daje président daayira yi bureau fédéral ak muqaddam ñëpp daje fi ñu boole dajale seen eh, yi ñu war a toppatoo ci gàmmu geeg matériel beeg li ñu war a def yëpp loolu dem ci gàmmu ga ak li ñu war a waxtaane daay rëy seen taxawaay ak seen rôle ci gàmmu gi yëpp ci lañ koy waxtaane ba mu yegg bu paasee nag bu Dakar si paasee ci lañu jël eh, ci lañu jëm nag bureau fédéral dem seeti dal yi fu gan yi war a dalal yooyu yëpp seet seetlu dal dem renouveler ñi nga xam ni borom kër yi nga xam ne dañu laa abal seen kër yu demee noonu renouveler seen engagement yooyu yëpp dañu ko daan def ci ci période bi nga xam ni boobu weer bi terewul weer bi xasee terewul nag ci la ñuy commencé nag di dem di yebal équipe yi nga xam ni ñooy dem ñu yor bâche yi ñu yor affaire euh, togg yi wala yooyu yëpp dañuy dem parce que bu weer bi terewul ba am deux jours rek gars yi dañuy départ fi dem dem Tivaouane dañaa benn équipe bu mag bu ci buy dem donc mbooleem kër yi nga xam ne abal nañu ko pour dalal ci ay gan bu ñu ko waree bâche ñu bâche ko def fa la nga xam ne moo war bu bëgg nañu ñu am benn problème toppatoo ndox mi toppatoo daal yi nga moo war dem yëpp ci matériel bi nga xam ne moo war dem ba bëgg nañu ñëw rek dañu ñëw rek daal di dëkk si matelas yeeg tout ça la lu ñu war def la nga xam ne defuñu ci gàmmu gi donc vraiment la bu rëy boo xam ne bii laaj parce que euh, dalukaay dafa xaw a jafe tuwaawoon parce que borom kër yi xam ne ñoo abal seen kër pour ñu fi dalal suñuy daayira ak suñuy mbooloo fa tabarakallahu duñ daan euh, duñ daan dem un mois à waxtaan ak ñoom ba ñu jox seen engagé renouveler seen engagement ñu ñu ñu toppatoo nag li ci war yëpp bu bëggoon ñëw duñ am benn tumuranke au passage ñu leen di remercier ñu ñëpp. di leen sant di leen gërëm ci yaatal bi ñu yaatal seen kër yi ak taxawaay bi nga xam ne moom lañ taxawu ci njaboot si si Cheikh Seydi Mouhamadou Moussa ba ay sa ay ganam suñu ñëwee jógee ci dëkk yi dëkkaan yi ci dëkk dëkkaan yi nga xam ne fa tabarakallah dañ ñëw foofu duñu xam duñu fa xam kenn ñu mën a am cadre d'accueil boo xam ne bii danañ fa mën a euh, suturlu ba gàmm gi jot ñu gàmm buñu pare ñuy dellu si waaw bu ko defee nag fa tabarakallahu vers les années quatre-vingt-un euh, ci la ñu formé daairatu mustachidin shubaan ahli tariqa tijaaniya ñu gën ko xam ci jumelage wala ñu xam ko ci mouvement jeunesse Seydi Djamil donc ci la ci lañ ci lañ ko formé njaboot gi it fa am benn daayira boo xam ne mooy daayira pilote bi nga xam ne moo ko piloté muy daayira Pape Assane Sow man mi ci laa bokk ak yenn lenn la ci njaboot Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha ñu daan doxal programme yi formé bu yàgg boo xam ne lu jiitu 80 ay ay 81 ah, ci nag euh, bi ñu demee ba. sëñ Moussa jox ñu digal ñu nemmeeku jeunes yi nga xam ne ñoo aju ci xadara bi te nekk partout dans le Sénégal te dañ commencé na di former ba unifier suñu bopp ñu ñëpp tudde ko jumelage parce que mag ñoom union la ñu amoon euh, union des daayira tijaan yi du Sénégal après ñu doon après suñu suñu jox ñu turu Moustarchidine Choubane ahli tariqa tijaaniya euh, ci la ñu euh, nekk ba léegi ba ñoo daayira boobu di par rapport moo initié Takkusaan Baye Jamil te li ko war a Takkusaan bi itam. Eh, dañoo xalaat nii bi ñu yàlla dogalee ñu wasal ñëw Tiwaawan bu ñu xëyee suba si noonu ñëw toog ba añ ba pare eh, bu 5 heures gars yi ba dañuy sañse solo seen sol bu fekk añ nañ bu pare daal sol seen yére nekk di taxawaalu ci mbedd Tiwaawan yi xam nga ay boobu ay ndaw lañu parce que ñu ci magoon ay 15 ans la ñu am ay 14 ans donc euh, ñu xal ni daal loolu ci ay xale mën na leen xiirtal ci dugg lu seen yoon nekkul ah ñu dem boo ci biir ñu wax euh, am ci ñu toog ñu ne ñu daal bu ñu ëllëgee ñu di di di dem ci taxawaalu ci biir mbedd Tiwaawan yi nañu toog daal sant suñu sëriñ tagg suñu sëriñ ba ndax lu ku fóotal ku fóotal mbër troccil bar ba tax na kon ñun bu ñu xamee yonent salaa salaam ak bu ñu amee yonent salaa salaam yàlla ak Seydi Hadji Malick la ñun bu ñu amee cër ci kër Seydi Hadji Malick yàlla ak Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha la kon nag loolu yëpp yàlla na lu nañu sant leen ah, daal di tagg leen tagg ci diggante boobu di tàkkusaan ba timis jour bi ñu ko jëkkee def nag boobu ay xale xaalu xale la rek am ñaari mag nekkoon suñu biir di Matar Sey ak Cheikh Ndour ñu nekkoon suñu ci jàppale ñu nekk ci ba timis jot bi timis jotee nag gars yi julli timis wasifa julli gee reer bi ñu reer par na kenn ku nekk na dem ci euh, fa nga bëgg fa nga bëgg a dem fekk toog pour gàmm fekkee gàmmu gi donc loolu mooy illay takkusaan bi mais boobu amaguñ ci woon ndigal dañ ko defoon rek san euh, sëriñ bi joxuñ ci ndigal bi mi mi ñibbisee nag gaa yi ñu def nañ lu ëpp ndax taalibe moom mënul def dara lu jëfe ndigal te comme que dañ ko def noonu rek suñu xalaatu bopp lañ ko defee suñu xalaat doyul tey mënu mënu matale kon nag nañu fexe ba liñ ci wax ñëw wax waxtaan ci góor gi ci la ñu Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha mbooloo mi toog mu jég ñu jéggalu ko nga def nañ loo xam ne bañ koy def it xërtee tax ñu def ko waaye amuñ ci ndigal fa tabaarakallaahu Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha mu war na leen ni mu demee mu rafetlu ko loolu daal loolu daal nekku ci wàññiwul daal mën ngeen jox naa leen ci ndigal léegi chaque année bu nga ñëwati Tiwaawan bu nga añee pare bu jul tàkkusaan ba pare diggante tàkkusaan ak timis mën ngeen foofu waaye def seen programme def seen tàkkusaan ba jëmil ba timis ngeen daal di eh, julli wasifa reer après dem ci seen ci seen ci gàmmu yi et loolu daal mooy illee bi nga xam ni mooy cosaanu tàkkusaan ba jëmil noonu benn daay raaka doon organisé ba ñu ko njëkkee def Euh, ci euh, ci benn ëtt la woon daanaka une de personnes la ñu nekkoon mujj gi nag dem nañu ba fa tabaarakallaahu xajatul ci ëtt bi ba ñu def ba ba ñu toxal ko li Cheikh Seydou Mouhamadou bu mu wax rek maa ngi koy wax sànq euh, neen daan la wax ni lépp kër gi lépp lu ñu sos ci dëgg lañ ko sos lépp lu ñu sos ci dëgg nag njëlbeen nga dafay see waaye mujj dafay rëy ah ñun tam wax dëgg yàlla bi ñu joxee ndigal ci tàkkusaan bi bañ koy def daanaka ñu ko doon def ay vingt personnes buñ ko buñ ko matee ci la ñuy toll. Ah, léegi nag fa tabaarakallaa xajutul ci kër gi ñu ko doon defee ba génn nañu kër gi defee ci benn bayal bayal ba mi ngi bëgg xat ci ñun. ba tax na koon wax dëgg yàlla mm, mm, ñaanu mag ak waxu mag junj mag bi yóbbaale nga topp ci waaye xam ne boo jaa boo yàlla laajte sa bët ba tax na kon fa tabaarakallaa ñu doon lay sant bu baax. ah gis nii rek euh, tàkkusaan bi noonu la commencé dox du dox nag ba yàlla dugal Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha mu mujjug dundam dernier tàkkusaan bi nga xam ne moom lañ fi mujjee def mu woon na ma ne ndax yéen a ngi préparé tàkkusaan bi man ko ah, ñu ngi ci de maa na ngeen ci góor de te boobu tàkkusaan bi ci benn kër la yemoon benn daay la ñun rek ñoo ko ñoo ko doon doxal mu ne di ngeen dem ba mu ëpp leen loxo booba ngeen ko te teel a fagaru léegi. suñu ah góor affaire bi daal comme que suñu suñu kàddaay rek la yem. moo xam naa du du du du débordé yenn débordement yi mu génn àdduna Cheikh xam Mouhamadou du toog place am ba mu toogee place am nag la joxe ndigal ngay tasaare ko ci daayira yi ba tàkkusaan bu ñu koy ñëw ci di ko fekk ci kër gi foofu ba kër ga mbooloo ma xatuñ xajatuñ fa ñu nañ ci place bi ñu koy defee léegi ma tax na kon fa tabaarakallaahu loolu it nekk na loo xam ne lii Eh, ci li gën a tax doxal tàkkusaan ci la bokk ndax mu Seydou Mouhamadou Fall bu ñëwee la la la yaatal mbir mi mu jox ko dimension boo xam ne mosu ko woon am ba pare boole ca ñëw di teew ci biir tàkkusaan bi loolu nag fa tabaarakallah muy ngañaay goo xam ne gi suñu wàll ak di kontante boo xam ne bi ci njaboot mboolem kuy njaboot Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha ak ñoom plateau boo xam ne bi nañ am suñu plateau bopp la boo xam ne bi ci biir gàmmu gi fa tabarkaala dañ koy ñu ci la ñuy doxal suñu programme gàmmu ak bu ko defee ñu dem wujji kilifa yi ci jàkk ya balaay balaay min wi ñu tas fekk kilifa yi fa ñu nekk nag ci ci jumaa ja ah, tabarkaala ànd ak ñoom ci gàmmu gi loolu daal wax dëgg yàlla ci wàllu takkusaan bi moo cosaan li nga xam ne daal moom moo ko moo ko indi gàmmu gi nag importance bu wax nañ ko ba tàyyi euh, dafa am loo xam ne lii yàlla moo ko wax dafa ne wa iza qudiyati salaatu fantashiru fil ardi bu ngeen jullee jumaa ba sëlmal tasaaroo leen ci ko suuf waaye waxul ngeen tasaaroo dem ci ndaw ràbbin ba wala ngeen tasaaroo dem ca fubalukaay ba wala ci damyeekaay ba wabtaxu min fadlillaahi la wax sàkku leen ngëneelu yàlla te ba ci gën a ak kasiran ngeen tudd yàlla fu ngeen toll bu ngeen defee loolu nag tabaarakallaahu la allakum amaan amaana ngeen texe kon nag su ko defee loolu yàllaa ko santaane ci jumaa moom farata la ci jaam bi waaye yàlla nee na boobu boo jox boo joxee sa farata ba pare bu mu tee a nga yaakaar ne fa nga yem bul bul bul rek ni pare laaj ci farata yi naa def lu ma neex da yàlla fi ni kon nag foofu toll ab tooxoo min fadlillaahi sàkkul ngëneelu yàlla ba tax na kon fa tabaarakallaahu yàlla wëlbati ko wax ni laysa aleykum junaaxun an tabtaxu fadlan min benn bàkkaar boo xam ne nañ ko toppee wala nañ ko toggoo fekk yéen a ngi nekk ci di di ci yàlla ba tax na kon fa loolu nag ah, yàlla nee na boo koy sàkku benn bàkkaar du la dina ko ci toppi su ko defee kon euh, gàmmu Tiwaawan yaakaar lu ko ëpp ngëneel gisuma ko lu bëgg ëpp ngëneel ak lu ko ëpp doole eh, fa tabarak ci yiw ak ci tabarakallahu am am tedd nga ci yàlla ndax yàlla moo wax ne in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni su fekkee na ngeen bëgg yàlla topp leen man sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam bu ngeen defee loolu yuhbikumullaahu yàlla moo leen di bëggal boppam kon nag sopp gi ñu ko sopp ak topp gi ko topp fépp ndax Seydi Hajji Maalik dafa ne alaa azimoo laylal wilaati isbatan isa lam yëkku naxul xaraami udduwul kon nag alaa dama ni alaa waawee azimoo màggal leen laylal wilaati juddu juddu Seydina Muhammad sallallahu alayhi isbatan ngir sàkku tuyaaba isa lam yëkku dem nekkul udduwul di jàng naxul xaraam jëm ci lu xaraam kon nag su ko defee Seydi Hajji Maalik moom mbiram da ko teg ci sunna su ko defee nag kon même tëgg yu sunna nga ngay feeñal sa cofeel ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam kon na fa tabarakallahu nekk na loo xam ne lii ah yaakaar naa ni wabtaghu min fadlillaahi boobu yàlla wax ni sàkku leen ko yaakaar naa ni foofu ci cadre boobu lañ ko lañ koy mën a dugal beneen bi itam fa tabarakallahu euh, muy euh, wa muhammadu rasulullahi wallazina maahu ashiddaa ala kufaar ruhamaa baynahum tarayhum rukaan sujjada waaye yemuñ ci loolu boo gisee ñu ngi sujjóot di rukkoo di sujjóot waaye nag yemuñ ci loolu waxtu yabtaxuuna fadlan min allahi wa ridwan kon yooyu yëpp ay càkkutéef la yoo xam ni di sàkku ay ngëneel ci sunu borom bi tabaraka wa taala jaarale ko nag ci lu ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nag fa tabarakallahu eh, muy loo xam ne li sopp sayyiduna muhammad moo ñu ko tax moo ñu tax a dugg ah, kon nag bés boobu bés la boo xam ne Seydi moo ko woote ci Tiwaawoon joxe ca ndigal fa tabaarakallaahu kon ñu doon la ci sant bu baax sànq doon naa ko doon naa ko waxtaane ndax euh, dama mos dégg sëñ Abdou Aziz Al Amin di wax ni Seydi Haaji Malick nee na radiyallaahu taala anhu Tiwaawan gii ma nekk sama coobare bàyyiwuma fi yàlla am lu mën a ma ci taaw Tiwaawan wóolu teg ma fi bu fekkoon maay tànn fu ma dëkk kon gaa yi ga mu juddoo du ma fa génne kon nag fa tabaarakallaahu ah li yàlla na mu ci Tiwaawan nag wax dëgg yàlla eh, ba wóolu ma teg ma fi wax jooju ma topp ko ba bés fa tabaarakallaahu ma dem ci benn wëllëre sëriñ bi doon naa ko nettali sànq di sëñ Mansour si Jamil di sax ay dara bu mu doon tudd doomam mu fekk mu ñëw fii di ko yëgal sëriñ fekk sëriñ bi dellu jëdda mu laaj ma sëriñ bi ma ne ko sëriñ bi dellu na jëdda mu ne ko nag yow mbir mi sa kaw la dal kon daal dama bëgg bés boobu ba talaata nga ñëw sama tudd doom ji ba ma demee ci tudd ba daje fa ak Thierno Mansour Bara bu Mbour radiyallahu taala anhu mm, ba ñuy waxtaan waxtaan nañ waxtaan bu rëy waxtaan ci wàllu taqwallah fa tabarakallahu ah ba muy waxtaan nag ci biir waxtaan ba mu ngi naan ñun de am na bés boo xam ne bi dañ koy def ca Tiwaawan ñu naan la ñuy ziyaare ji Tiwaawan ñu ne waaye ñun dafa am bés boo xam ne moom lañuy màggal si te gis nañu xadaraat yi nga xam ni xadara xadara yi nga xam ni seen diggante xadaratu ilaahiya dara doxul ci diggante bi xadara Seydi Hadj Malick ci la bokk moo tax ñu gis ñu ñu àndandoo ah, weeru koor bu jotee boo am fukki fan ak juróom-ñaar muy boo xam ne moom la wax yowmul quraan yi ci lañ ñëw pour màggal alquran loolu moo waral ziyaara boobu ñoom ñu koy def kon nag ñoom ñi nga xam ne ñu ngi ñëw def ziyaara bi xam ni bërëb la boo xam ne bi diggante ma xadaratu ilaahiya dara des lu doxul ci diggante bi kon nag mel ni ay nitu yàllaa ko wax ñoo xam ne ñi vraiment ñu confirmé Seydi Hadj Malick kon fekk na wax ji nga xam ni eh, la waxoon ni yàlla moo am lu mën a ma ki daan wóolu ma teg ma fi ba ngi demee di ko seet ba ci biir ma toppee wax ji ma gis baatu alxu baatu euh, Tiwaawan 463 la euh, ci liim hmm, boo ko àndalee boo ko multiplier 7 fois 3 fois waaw boo ko adressé cette fois dem na 4161 la jox moom mu nekk juróom-ñaari mu jàpp lii mu aaya boobu wabtaxu min fadlillaahi waskuru allaaha kasiran laallakum tuflaxun kon aaya boobu yàlla waxe ni sàkku leen lu yàlla te fu ngeen sàkk ngëneelu yàlla bu ci gën mooy waskuru ak kasiran dina dina tudd yàlla fu ngeen toll laallakum tuflaxun amaan na ngeen texe kon nag aaya boobu mooy wan ni seen ci waawoon bërëb la boo xam dañ fay sàkku yiwu yàlla dañ fay màng yiw dañ fay wutu tiyaaba fa tabarakallah moo tax mu ne àla azim moo laylal wilaal di isbatan isa lam yëkkun naxul xalaami udduwul kon nag bés la boo xam ne bés la boo xam ne ñëpp dañ fi sàkku yiw di fa sàkku ay tiyaaba di fa dolliku yiw di dolliku suñu cofeel ci Seydina Muhammad te yàlla neen na képp koo xam ne ki sopp nga Seydina Muhammad yàlla seera àla nasr yon salaa sallam moo ko wax maxtulita xubbi fi qalbi ahadin ilaa wa xaramallahu jasaduhu mina naar bépp xol boo xar fekk ci xol boobu sama cofeel man sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaram ba ëmb xol ba araam na safara kon nag fa tabaarakallaahu ah ñu ngi sant yàlla bu baax yàlla may ñu tawfiix di ñaan yàlla yàlla may ñu tawfiix ñu fekk bis bu guddi guddi gu rëy googu nga xam ne la ki nekk ci yiw kenn xamul nu mu toll beneen bi itam li justifier gàmmu eh, import fi nga mën a xam importance guddi gi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaa ngi koy seede ci guddi gi laylatul ndax <coughs> lëleetul xadri guddi la goo xam ni ngi yàlla daf ñu def ngëneel lu rëy te ngëneel loolu nag li ko waral mooy wàccu alxuraan ci guddi googu ba yàlla wax ni inaa anzalnaahu fi laylatil qadri wa ma adraka ma laylatul qadri laylatul qadri xayru min alfi shahrin fekk loolu daf ko wax dafa su ma ko déparé mooy dafa préciser at mi ban weer la ci alxuraan wàcc shahru ramadan allazi unzila fii quran weer ñi ngi wàcce alxuraan ci biir weeru koor ñu xam ni weer fukki weer ak ñaari ci at mi yëpp alxuraan wàccul ci benn weer bu dul weeru koor waaye nag xamu ngi ndax guddi la wàcc wala bëccëg la wàcc mu gën ñu ko ne inna anzalnaahu fii laylatin mubarakatin wàcce nañ ko ci guddi gu ñu barkeel ñoo xam ni ko alxuraan wàccul bëccëg guddi la wàcc ñu dem ba ci mu ni inna anzalnaahu fii laylatil qadri wa maa adraaka maa laylatul qadri laylatul qadri xayrun min alfi shahr mu ne guddi ñu wàcc alxuraan nag mooy guddi laylatul qadri laylatul qadri boobu nag xayrun min alfi shahr na junniy weer yoo xam ne jaamu nañ ko yàlla te yàlla nangu jaamu ko jaamu yàlla ci benn guddi laylatul qadri moom moo moom moo ko ba tax na kon ah, xam ne guddi googu li ko waral mooy alxuraan la mu wàcc te am na koo xam ne kii bu du wontee moom da sama di wax ni. bu du wonte Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kenn du ñu xew bay xew kon na fa tabaarakallaahu alxuraan boobu Seyd nekkuk Seydina Muhammad moo tax alxuraan wàcc waaw bu ko defee nag kon ah yooyu ak yiw yooyu yëpp ci aju nag Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam incarné benn jëmmam yaakaar naa ni kon ku màggal juddoom yaakaar naa ni ah fa tabaarakallaahu important boo war a mën jox laytu xaddi ba nga ko jox guddi gi mu juddoo danga kon ñu doole sant bu ñaan yàlla rek euh, yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm te yàlla ma ñu defal ñu tawfiix ah su ko defee nag fa tabaarakallaahu gàmmu gi moom ah lañ ca war ak lañ cay def ginnaaw ba nga xam ne ni jóge bàyyeekoo nañu fi ñu bàyyeekoo tàggoo ak suñuy njaboot nañu góorgóorlu ba na dem Tiwaawan nekk suñu itte ndax am na objectif boo xam ne bu ko nit tax bu bu bu nit ki jógee di ko wuti da ciy def fulaam ak faydaam waaye damay dem Tiwaawan fu ne nga jàll fa fu ne nga taxawaalu fa ba fa tabaarakallaahu waxtu ba jot nga ñëw ni jalañ biir Tiwaawan ndax mag ñi am nañu zone de sécurité boo xam ne bii dañ koy garanti ci yoonu Tiwaawan su ko defee nag la ci musal nga nga mën a dem ci jàmm dellu si jàmm mooy zone bu yoon boobu ñu traversé ak zone de sécurité bi nga xam ne moom la ñu traversé ci nga fexe ba jaar ci yoon boobu su ko defee nag boo dévier yoon bi wàcc dem ci leneen wala dugg ci leneen loo xam ne bokkul ak gàmmu gi bu ëllëgee rek mën nga ci am loo betteel te fekk ni yaa ko teg sa bopp. ba tax na kon ñu góorgóorlu ci di sàmmoon teg ndigal yi nga xam ne ñoom la ñu kilifa yu jox su ko defee fa tabaarakallaa ñu ànd ak dal ñu ànd ak teey ah oto yi yóbbu nit ñi nañu respecté nit ñi yabuñu ay xar yabuñu ay bàyyima su sa oto bu mu fees dell nañ ñu nekk ca kaw. insécurité bi kenn xamutal boole ak di dawal vitesse boo xam ne bi jaaduwul loolu wax dëgg yàlla nañ ci bàyyi xel te bañ nga xam ne nit ñi du ñu ay xar ay doomu adama lañu seen sëriñ ak seen ndigalu sëriñ ak màgg ak sopp Seydina Muhammad moo tax fa tabaarakallaahu ñu ñu am itte boobu bu mu jaral leen ñu yëg ci ko oto yeeg dagg seen paat di fay ñu fu ñu naan fay jaral leen ko ndigalu Seydina ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon nag loolu ñu mel noonu nañ leen jox orma nañ leen jox cër bu baax a baax te ñi nga xam ne di yóbbu ñu jox leen respect ci li leen di yóbboo suñu dawal dawal dawal boo xam ne bi dawal bu normal la bañ a violer yenn code yi ba pare nag baal tabarakallah ba ñu de vitesse bi ndax ñoo xam ne dañ nekk ci kaw ci kaw njaganjaay eh, seen équilibre dëgërul pour nga ma oto bu freiner brusquement ñëpp mën nañoo kawee ko ci kaw daal te loolu yépp ay mesures de sécurité lañ ko war a jël suñ ko mënul tere ndax tere moom moo ci war damay léeg-léeg nit ñi bare bare waaye goo xam ne doo soo ko ne mënoo ko tere yow mi yëpp nit ñi war nga naan war nga ne respecté ba tax na fa tabaarakallaahu ñu bàyyi xel loolu bu baax a baax xam ne bés la boo xam ne bii ngëneel la ak yiw la waaye nag na ci nit ñi dem ci jàmm dellu si jàmm ànd ak dal bu baax a baax a baax ndax kër gi dal la xam ba tax na kon fa tabaarakallaahu ah ñu sëñ mu Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha muqaddam yi ma daan yebal gàmm daan leen yónni ci gàmm yi dafa am lu leen daan dénk lu leen daan wax ni koo xam ni kii xëy na suba julli julli suba julli tisbaar julli tàkkusaan julli timis julli gee safa huit fekk boobu bu mu xëyee joxe na dépense këram la war ci njabootam def na ko dem na bureau liggéey ba dellu si farataam ci journée ba matal na ko la war ci responsabilité ci ay dëkkandoom la war ci responsabilité ci ay mbokkam la ko war ci responsabilité ci ay waajuram lépp matal na ko mu julli gee ba safa wiital reer kon bu tëddoon nelaw yàlla du ko wax dara kon mu bàyyi nelaw yi dagg ko dem sol mbubb moo gën a fonk bu gën a rafet ci mbubbam e, tabaarakallaahu tuura loj ko lañ bu gën a nekk ci ay loj ko lañam jël aslëf ci alam def ci poosam ñëw na ngir yàlla ak jëmmi Seydina Muhammad ron ron ronu tànt boo xam ne bi yéen a koy taxawee ba mu dugg foofu ngeen ngeen sàggan di di wax ba moom mu jël ci si jóg bu jóg mu mer mu mer ci wax ja wala daal ngeen wax fa lu ko merloo nee na boobu la responsabilité à tout le monde dañuy ay ganu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dagg seet nelaw te fekk la leen waroon di leen yàlla santoon def nañ koo pare ñëw dugg ci taal ngir yàlla ak jëmi Seydina yëg boobu ñu am Seydina Muhammad ak cofeel am nga ñëw xëy su boobu nga nga ñëw ba ñëw ba ci yow nga fa wax lu looy yëkkati seen siddu su jë ne boobu responsabilité man Moustapha attanu ma ko kon na ngeen fexe ba su mbooloo fan ak fu ñu mën a jóge fu ñu mën a bokk bu ngeen fay wax na loo xam ni jàmm la na ngeen fa wax loo xam ni kenn du ca mer kenn du ci yëg nii dañ la xas wala dañ la gaaral voilà loolu sax ñu xas sëriñ wala ñu ciy wax loo xam ni naka su dul noonu kon su ko defee am na rigueur boo xam ne bi ci activité am boo xam ne bi moom noonu la noonu laan foofu ci laan jaarale gaañi ñu koy respecté ci gàmmu yeeg ci place yi xam ne fa lañ fa lañ mbooloo yooyu daje kon su ko defee kon eh, jotaay la boo xam ne bii nañ ci bàyyi xel bu baax xam ne lu war nañ ko def ci jéem a am discipline te Sénégal lenn rek moo ko teree avancé li ko gën a tardel moo ñàkk discipline boo demee ci bërëb ñu war fa rang war foo jël dara wala nga dem banque si ne nga buuxante boo xam ne bi te loo xam ni boo toogoon ñu rang boo demee ci pays européen yi ak lu mu lu mu yàgg yàgg na ngay ñëpp dañuy rang toppante kenn ku nekk def nànk la ngay def ba jot si la ngay yot te du la yàqal dara mais fii kenn ku ne day wane maa gën a xëj maa gën lii wala maa gën a ku ne di dara jaam ci loo xam ne lii bu ñëpp ragoon ñu ku nekk di nga am li nga bëgg te benn coow du ci am. noonu su ko defee ñu dolli ci góor góorgóorlu. xam ne gàmmu gi événement bu rëy la boo xam ne bii tuyaaba yu rëy ñu ci juddoo ah jullit yi dañu ànd nekk benn waxuma dara sa waaye retrouvaille boo xam ne bii ci ay mbokk retrouvaille ci ay soppe retrouvaille ci ay xarit yoo xam ne xëy na ba ñu gëj a gisee léegi na ni daaw la woon fa tabarakallah retrouvaille ak mbégte boobu ak saafonte boobu na alquran dafa wax ne kullu xisbin bi maa ladayhim farixoona kuréel gu nekk la ñu diggaale ci li ñuy bégalante kon mbégte yooyu kanam ak ni kanam yi béllee yaakaar naa loolu rek yàlla parce que nag fa tabarakallah ñu ngi màggal juddug Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nag ñu leen ndokkeel bu baax ci weer bi di ñaan yàlla yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm yàlla may ñu fekk tal e fa tabarakallahu te ñu doon leen sant bu baax a baax gànn gi daal li ci nekk bare na li ci lekk ci ngëneel bare na xam naa ne bu ñu ko toppee mën nañ fi wax fii ba suba waaye dama bañ a dugg ci yenn détails yi ba euh, fa tabarakallahu gi woon su ko defee eh, ñi ñaan yàlla rek yàlla jàppandal euh, rajo bi euh, télévision wala site bi nga xam ni moom moo ci nekk eh, yàlla def ci tawfiix yàlla yokk ko barkeel ko ba fa tabarakallahu mu nekk siit boo xam ne bi lépp laa soxla ci diina ji lépp laay soxla ci mbokk gi ak lépp laay sox ci askan bi ñu mën koo taxawee ba ñëpp gis seen bopp ba am satisfaction totale kon nag ñu leen santu baax di leen gërëm ah li ñaan yàlla yàggal taxawaay bi si sutura si ah li ci des nag ñu yaa ko yàlla rek bu ñu eggee jàmm ca gàmmu ga ca tàkkusaan ba xëy na ah lu ci manqué la ñu jëm ci waxtaan incha allahu taala mu nekk